danero Nero bak na piyasa ang araw pa zoom ka sa kalo kita kena ko ah semoga magain nagnyari na karakter dyan karo mo dyan karo ah Nee kado kada kada gitsem balantela andi musia far aw bu ñemengi ni aw bu pare aw bu nangul ah kado mushi bien lu la neex defal na raay ah abidou abidou eh bi aca commencé naa kalson non da ba am point tiraaw am nga montre Wow wow. c'est à garder xale xale bi dafa classe moo tax nag waaw ñaar bi dafa engagé bien sûr ak ñaareel bi rek ñaareel bi dafa engagé ñaareel bi dafa paré. airport ba paré tagal ma fi airport bu amul fenn li may heure ba may wo rek Mom ngay tàkk waaw waaw kay. non man maa ngi dee. ah la la la si kenn bi. ooy si moom moo koy njëkk a essayé ci yow moom balaa muy dem. <laughs> man maa ngi dee. barke yonent bi barke yonent bi ah, ah nu mu xam sa daal man daal moom jaaxal na moom ah <laughs> ah nee eh. eh wuyu ko nee na eh wuyu ko yow wuyu ko nee eh eh lan daa eh. ñëw pour demander Nero en mariage donc de fiançailles xaaral ma zoom ko sax <laughs> Takut sih Badannya. Wih, sama nih. Sama alun ayakun nah. Ati doa. Eh eh eh, mana solol korek nak solol ko. Mana eh, amul amul dañ mako ki amul dara. Wa eh. Ya eh, nang ko sen, acha. Amul zoom. Jalal F. Takkan nga garmi. Tak nga bete bete tak nga barké barke yonent bi na la sëyal. na la fotal na la balé na la passé na la bon bon yi bax na la ray ray yi bax man mii doo ma sama baax. jaajëf kay. ma ya yaa commandé. ya mën commandé te bàgg Ya man commandé wu ci bagage yi la bay lo. gis ngeen bu kenn mu jeex waa TikTok na ma kenn bu ma kenn xoolal takk nañ ma. sëy damay sëy ji nag. ooy sama nañ man kay jeex na man man mii la première fois ummi mii takku ma maa ko takk waaye takk nañ ma man. waaw moom lan lay def si téléphone bi moom lu muy wër moom. Ah, Eve. bilaay yaa gën a jóge ci Sénégal. takk <laughs> eh, eh, jeex na may xale yi. Ah! yaa gën a jóge ci Sénégal. ba tey ah, maa ngi filmé de takk na ma. ndox ah, mi voilà voilà merci beaucoup man lii moom ma si yéeme pointure bi waaw. mi doon garaaw dinaa ko jël si pet naa ko jël si pet nan la ba xam sa pointure. Eh, eh, eh, oh, ma ne may yow.